jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci BTV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am kontaan ak mbégte bu yaatu ci jàkkaarloo ak yéen ci seen émission bi nga xam ne ñu ngi ko tuddee nit ki amul lu dul jëfam bi ci alxuraan nag mooy wa an laysa lil insaan illaa maa maanaam nit ki amul lu dul ci jëf jooju nag la ñuy seet rek mboolem ku baax di waxtaan ak moom ñu toog ak nag koo xam ne kenn la moom itamit ci imaam yi ci ustaas yi muy imaam Mouhamadou jàlloo nekk kenn koo xam ne xam nañ ko ci wàllum jàngale ci mbirum diine. mu nekk sëriñ nekk jàngalekat nekk seexul mu murabbi euh, nekk seexu tarbiyet itam euh, nekk koo xam ne suñu mbokk mu ngi nekk fii ci caaro sur Mer euh, di fi yëngatu ci wàllum xam-xam ñu ñëw fi nag tey seetsi ko ci nit amul lu dul jëfam fas yéene waxtaanee ak moom ci weeru koor mu fàttaliñu ñu rek ci mbirum koor ginnaaw bi ñu ko dalalee imaam Mouhamadou jàll ñu ngi lay nuyu ci BTV. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، ñu ngi leen di fay nuyu di leen wax waa aleykum assalaam wa rahmatullah di leen dalal itam ci bërëb bi nga xam jërëjëf imam kon xam naa dañuy dugg rek euh, ci waxtaan wi ndax ñu ngi ci weeru koor euh, weeru koor nag ñu ngi ci bëri na ñoo xam ne ñu ngi woo rek waaye euh, amaana ñu weer bi bu baax naka la ñuy kooree imam waaw lan mooy koor ci sariyatu weeru koor ci sariyatu maanaam mm, buñ ko gàttalee rek bañ ci dugal ay baatu arab mooy jàppalu bu ànd ak yéene boo xam ne mooy jiitu jëf ji ndax booleem jaamu yàlla yi nit di jaamu yàlla yëpp jëf bi mën na maase ak euh, yéene bi waaye koor moom yéene bi mooy jiitu jëf ji moo tax yent bi nee na ku fanaanoo ak koor amagul koor ndax weer wi buñ ko séentoo ba gis ko ginnaaw timis bu boobaa la ñuy fas yéene euh, euh, suba dañuy woor moo tax kon yéene bi moom mooy li nga xam ne moo jiitu jëf ji euh, benn nga gis ko nag wala ñu gisal la ko ndax tënkuñu ne rek nga gis ci sa bët mën na am keneen jullit gis ko koo xam ne gëm na yàlla euh, euh, mooy yàlla dëggal na yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy yonent bi dëggal na alquran itam mu ngi jëfee kii la ñuy tuddee di julli di woor di génnee asaka di aj màkka kii mooy ki nga xam ne moom la ñuy wax jullit kooku kenn ku bu ko ci gisee mu nekk ko maandu rek euh, ne gis nañ weer wi war nañ jàpp ci loolu woor kon koor googu nag mooy jàppandu ci wàllu lekk ak bañ a lekk bañ a naan ci jaamoo ko yàlla def ko mbir ngir jaamoo ko borom bi subhaanahu wa loolu mooy euh, koor ci sariya mu ngi tàmbalee nag ci bu fajar fenkee bo keroog jant di so foofu mooy euh, loolu mooy bañ a nag euh, def lépp loo xam ne day dog koor nu mel ni sëy ak soxna ci bëccëgu weeru koor wala euh, lekk wala naan wala jëf-jëf yoo xam ne daal day indi mën na laa indil sa génnee sa mëniw wala jëf yoo xam ne mën nga ko ba nag nga ko jëf wala nga seetaan nga xool ko ba mu ba génnee ko wala nga sabab ko Euh, wala daal def loo xam ne rek xam nga ne lii sariyatu def ko def ko tere euh, day dog koor lii mooy koor mooy daal jàpp bu ànd ak yéene bañ a lekk bañ a naan bañ a jëf jëf yoo xam ne itam day dog koor ci jëf yi nga xam ne day ko bokk na ci euh, li ñu nettali léegi muy sëy ak soxna wala di yi xool loolu di ko xalaat boo génnee ndox bi nga xam ne moom la nit di génnee muy góor loolu euh, euh, mooy koor ci sariyatu jërëjëf imam loolu am na solo euh, waaye ñaata weer moo am ak ban weer mooy weer bi nga xam ne moom la ñu war a woor ci weeru koor weer yi nga xam ne moo nekk weeru yi nga xam ne mooy asa weeru asamaan muy weeru lislaam fukki weer la ak ñaar yàlla tudd na leen ci suratu tawba mu ne inna iddata suhuuri inda llahi isna asara sahran fi kitaabillah yowma xalaqa samawati wal ardi minha arbaatu hurum zalika diinul qayim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musrikina kaafa kama yuqatiluna kaafa nila la ko yàlla waxee maanaam la ak ñaar mu ngi tàmbalee safar rabiul awal Rabiusani Jumadul jumaadul Jumadusani rajab Saaban ramadan ramadan nag mu ngi taxawee ci juróom ganau maanaam ci juróomi wente euh, gannaaw ramadan nag zulhizza mu nekk fukki mu muharram boobu ñu tàmbale moom la ñuy wax euh, ci olof tam xarit mooy sunu euh, taxaw sunu taxawaayu njëlbeenu weer ci at mu ngi mel ni comme bu dee euh, bu dee ci tubaab mooy sunu janvier waaw ñu teg ci digg ñu teg ci gàmmo ñu teg ci rakka gàmmo ak rakki gàmmo ak rakkaati gàmmo nday koor maam koor baraxlu maanaam weeru koor daal di ñëw mooy juróom-ñeenteel la taxaw juróom-ñeenteel yooyu nag euh, ci lim lu am solo la ci biir diine lislaam kon juróom-ñeenteelu weer moom la digal ngir ñu woor weer boobu benn ñu woor ko nag ñaar fukki fan ak juróom-ñeent wala ñu woor ko fan weeri fan lii mooy weer yi e, weer yooyu nag e, benn weer yëpp yàllaa leen moom yàllaa leen moom e, waaye benn weer la seppi tudd ko ci alquran ci téere bi nga xam ne mooy euh, mooy magu téere yëpp ndax yàlla wàccee na euh, téeméeri téere ak ñeenti téere téeméeri téere yooyu yëpp la ñu mu ngi ci ñeenti téere yi ñeenti téere yooyu yëpp nag euh, mu ko mu ngi ci mu ngi ci ñeenti téere yooyu yëpp ñetti téere yi boole nañ ko ci benn téere bi téere téere boobu nag mooy alquran kon ci biir alquran boobu yàlla tudd na ci weeru koor amul beneen weer nag bu mu fa tudd bu dul weeru koor. Euh, date bi nga xam ne mooy date bi nga xam ne moom la koor tàmbali date bi ñu jàpp ci ne bii moom mooy weeru bii lañ war a woor date boobu ban date la. waaw euh, bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee di woote ba mu gàddaay jógee Makka dem Medinatul war mu dem Medina nekk fa at ba ñaareelu at bi ci weeru baraxlu bi mu amee ñaari fan ci la am ndigal ne weer ba ca tegu muy weeru koor maanaam bu ñëwee nañ ko woor moon kon euh, baraxlu boobu taxaw na ci juróom-ñetteelu weer bi juróom-ñetteelu weer bi taxawee ba mu am euh, euh, ba mu am ñaari fan lañ ko digal ne bii dee bu jeexee ba ca tegu na ngeen ko woor kon foofu ba léegi yaa ngi gis ne maanaam ndigal bi kon jiitu na jëf ji kon ci ñaareelu fanam daal ci ñaareelu atu gaddaay bi ci la digal yonent bi sallallahu alayhi wasallam weer bii di ñëw di weeru koor Ramadan bu ñëwee na ngeen ko woor na ngeen woor bëccëg bi eh, dog guddi gi na ngeen woor bëccëg bi dog guddi gi lii daal mooy eh, dat bi nga xam ne moom la ñu mën a jàpp fu mu nekk nii boo xamee datug lislaam ñaata at la am rek boo ci génnee benn at eh, li ci des da nga xam ne maanaam bi ñu leen digalee woor ba léegi temps ci at la ñu am ndigal bi waaw lii la. waaw jërëjëf imaam dinañ la laaj tamit koor gi njëriñu koor ak digle ya ca ne ci biir weer bi. Euh, maanaam njëriñu weer bi yonent bi sallallahu alayhi wa nee na euh, euh, koor mu ngi mel ni ci doomu aadama kii nga xam ne moo woor mu ngi mel ni pakk pakk nag mooy. loolu nga gis ne policiers yi dañ koy yore bu ñuy dem di bëre ak maanaam ak lu mel ni ay étudiants wala ak yeneen loolu nga gis noonu ñu ñu te ñu koy téye bu ñu leen sànnee xeer ñu teg ko ci seen kanam yi euh, mu bañ leen gaañ xeer bi daal di dal ci loolu loolu lañ tuddee pak boo demee ci bu dee indo yi nga xam ne dañuy liggéey lu mel ni épée moo dañ koy jox yore ci seen euh, euh, loxo càmmoñ yore épée bi ci loxo ndeyjoor bi bu ñu dóorantee kee bu la bëgg jam nga nga teg ko ci kanam épée bi mu la bëgg a jam dal ci loolu lañ tuddee pàkk pakk boobu nag ni mu mel di la di la aar ci nga bañ a gaañu euh, noonu la weeru koor yitam di aare ki nga xam ne woor na ko te or mal na weer wi waaw loolu mooy euh, bokk na ci bokk na ci njëriñ yi bokk na ci njëriñ yi ba léegi itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na euh, jullit bu bu fekkee woor na benn bés woor bu wooree benn bés maanaam bés boobu lam koy jëriñ ci koor mooy danañ ko soril jëmmam bi Eh, ngir bés boobu rek danañ ko may eh, jëmmam bi danañ ko soril juróom-ñaar fukki at diggante moom ak eh, ak safara maanaam nit bu tàmbalee di dox di dox di dox di dox ba mu mat juróom-ñaar fukki at muy dox fi mu tàmbalee ak fa mu taxaw ci juróom-ñaar fukki at yi différence bi maanaam diggante bi ni mu soree danañ soree noonu sa jëmm ci benn bés boobu léegi nag da ngay gis ne boo ñaar fukki fan ak juróom-ñeenti xam nga kon yow sori nga safara mm-hmm. te ku sori safara nga jege àjjana kon loolu mooy li nga bokk na ci eh, bokk na ci njëriñu maanaam koor mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa nee na koor ba léegi am na beneen njëriñ njëriñ bi mooy nit ki bu wooree ba nga xam ne fu mu nekk nii jël na tàndarmaam eh, eh, ne allahuma laka sumtu wa bika amantu wa ala risqika aftartu faghfir li ma qaddamtu ma akhartu mooy lan mooy yow de yàlla yow yow yaa tax ma woor waaw ah, yow yaa tax ma moor laka sumtu sama koor gi yaa ko moom wooraluma ko ngir xërëm wooraluma ko ngir soxla wooraluma ko dama ko woor ngir yaa digle naa woor ma woor ko mu ne boo waxee loolu nga ne ko wala risque ka aftartu si sa wërsëg itam ci laa doge maanaam yow yaa ma jox li nga xam ne moom laa doge hmm? ci yow laa gëm itam bi ka amantu ci yow laa gëm yow laa gëm gëm eh, ngëm li ñu tuddee ngëm eh, ci olof maay bul gëmmul bul wax eh, bul seet maanaam yàlla bu la digalee dara doo xoo doo ne man de lii balaa ma koy def damay xool la lan laa ci am wala lu ma ciy ñàkk déedéet yow yàlla moo la ko digal rek defal defal yaa ngi mel ni rek militaire bu ñu la nee tiireel doo lu tax may tiire da ngay rek waaw naka noonu itam euh, euh, nga ne ko mm, jéggal ma fax fir lii jéggal ma waaw ndax kenn du jéggale bàkkaar ku dul yàlla ndax yalla mom nit ñi moo leen moom moomel bo xam amul kenn ku mu bokkal ak ñoom kon nag mooy ki jéggalaa kon bàkkaar moo tax moo na nga fax fir lii waaw fax fir lii jéggal ma waaw ndax kenn du du bi nga waxee loolu lekk sa tàndarma sa sa koor déegi dog na diggante nag daga am yalla may na la itam lépp loo ñaan yalla yàlla dana la def daf la koy nangul lo ñaan yalla rek yàlla def la koy nangul am euh, euh, lo soxla nag ñaan ko lagi nak bul wax ne ñaan naa ko léegi ne koy daf may nangu subal déedéet yow li nga ah liñ la digal rek mooy ñaanal ñaan nga ñaan nga ka kañ la lay yàlla di eh, eh, eh, bul li bul toppatoo sax di lijjanti kañ la may di nangul yow daal ñaan nga ñaan nga yàlla moo la waxoon ñaanal ñaan nga ñaan nga sa ñaan loo soxla nag ñaanal lépp loo xam ne du dog mbokk lépp loo xam ne du lor doomu aadama lépp loo xam ne njëriñ la àddina wala njëriñ àllaaxira ñaanal loolu boo ñaanee loolu rek nanga nga am euh, euh, kóolute ne yàlla dina la nangul ñaan bi kañ la la koy nangul nag loolu moom mm, bu ko jéem a lijjanti yàlla moo xam gannaaw loolu itam euh, ëllëg yowmal qiyaamati bu ñu bu ñu teewee ci kanamu yàlla yàlla dina woo indi ma benn malaaka mu woo ana woorkat yi ana woorkat yi ana woorkat yi maanaam ñoom ñëpp di jóg di ñëw ci benn barab bu ñëwee ci benn barab ba ñu leen yéen yéen ay workat yi mu ne leen waaw mu ne leen yéen bu ngeen di dugg am na benn bunt boo xam ne yéen rek lañ ko jagleel ñu bunt ubbi bunt boobu ñu ne leen ñëw leen dugg bunt boobu mu ne mu ngi tudd rayaan bu ñu duggee ba pare bu ñu noppee ba ñu woorkat yëpp dugg ñu daal di tëj buntu boobu ñu ne bunt bi daal workat yi ñoo fi dugg defe naa nag ku ñu beral bunt booy duggee mën na am ñu beral la ajjana itam bu la beral la ajjana itam mën na am ñu beral la berndeel boo xam ne eh, duñ ko jox ñeneen aji woor ji lu muy am ci biir weer bi bu wooree ci biir weer bi euh, maanaam koor euh, njëriñ bi nga xam ne moom lay def aji woor ji euh, ci wàllu ruuxam ak ci wàllu socialam maanaam ak ci wàllu wërgu-yaram lii la nit ki bu fekkee ne woor na maanaam ruuxu bi buñ ne ruuxu rek mu ngi tàmbalee ci sirru mooy mbootu yàlla la ñu ñëw ci ruuxu mu ñëw ci li ñu tuddee aql mu ñëw ci liñu ñu tuddee qalbu mu ñëw ci li ñu tuddee jismu maanaam ruuxu euh, euh, mbir la buy dox mbir la boo xam ne mbiru yàlla la waaw yàlla waxoon na yonent bi sallallahu alayhi wasallam danañ laaje ci mbirum ruux waaye buñ la laajee nag nel ruuxu mbirum yàlla la waaye nag ruuxu boobu yëpp euh, moo moo moo moo dundal jëmm ji moo dundal jëmm ji loolu nag da li ci liñ ci mën a jëree rek mooy ruuxu bi ak xol bi ak xel mi ak jëmm ji yëpp benn ji benn benn benn barab la ndax ruuxu bi bu moo bu génnee ci nit ki maanaam euh, euh, boo yëngalee euh, du yëngu boo waxee du dégg bu boo waxee du la tontu kon ruuxu boobu bu duggee ci nit ki rek nit ki ruuxam maanaam dund na xolam daal dina dundu xelam daal dina dundu kon li muy def ci nit ki ci wàllu ruuxam mooy bu ñu nee wàllu ruux rek mooy wàllu xol bi mooy wàllu bakkan bi mooy wàllu euh, maanaam euh, xel mi bokk na ci lim lay def moom yow daf lay jàngal muñ daf lay jàngal muñ maanaam daf lay tàggatal ci daf lay tàggal ci muñ ci muñ ndax da ngay gis ne léegi yow fu nekk nii koor dugg nga biir néeg fekk nga fa ndox fekk nga fa lekk gisoo kenn nekk ci biir néeg bi euh, ku dul yaag sa borom subhaanahu wa taala mooy nga xam ne dara du ko faddu léegi nag yow yaay eh, eh, eh, bu la neexoon nga jël ndox nga naan bu la neexoon nga lekk boo génnee wa boo ko waxul kenn kenn du ko xam waaye yow ak yàlla moom xam nga ne koor nekkatu fa yàlla itam xam na ne koor nekkatu kon léegi muñ bi nga mën a muñ ndox mi muñ bi nga mën a muñ lekk bi ak muñ bi nga mën a muñ sa soxna bi loolu def lay jàngal maanaam muñ def tàggal si sa bakkan bi muñ xataa bu weer koor bi jeexee itam muñ boobu mu mu mu wéy ci yow mu wéy ci yow mu wéy ci yow mu ëllëg boo gisee loo xam ne waroon nga koo mën a euh, tontu léegi wala mënoon nga ko mën a faj léegi ci wàllu mer nga muñ ni nga muñee woon ci biir koor gi ndax loolu tàggat la kon loolu dalay tàggat euh, muñ dalay tàggata euh, ci wàllu muñ nga nga mën a nekk nit koo xam ne ku ku mën a muñ la mu ngi mel ni yonti yàlla aadama keroog bi doomam bi gaañoo bu ñëwee ne soxnam bi diw dee dee na xawaa eh, mu ne xawaa sunu doom bi eh, dee dee na mu def ko ne lan mooy de ndax booba xamul lan mooy de waaw kon aji woomle bi dëgg dëgg dëgg dëgg moom xamul coono waaw xamul xamul xiif waaye nag bu weeru koor ñëwee gannaaw moom jullit la eh, day day mos maanaam xiif day mos xiif day mos xiif day mos mar bu boobaa nag ëllëg bu nit taxawee ci kanamam ne ko damaa xiif day yëg ne ah ndeke xiif de dafa metti ndax mosoon naa woor bu dee euh, def ko ne damaa mar dana xam ne ah ndeke mar de dafay lor jaam bi kon loolu bokk na ci li nga xam ne ci biir mbooloo jullit ñi eh, maanaam day tabax eh, da da da koy tabax da koy tabax kon loolu bokk na ci li nga xam ne maanaam euh, koor da koy def ci biir euh, mbo kii bi ci wàllu euh, euh, ci wàllu euh, maanaam wérgu yaram nag xam nga bu même bu dee benn tuyau boo xam ne dañ day sotti ndox at bu nekk mu sotti ndox ba bu de demee ba mu yàgg tax tax boobu di ndox mi di yóbbaale di ko bàyyi ci moom day indi tilim tilim tilim tilimu boobu nag mu ngi mel ni li nga xam ne moom mooy recevoir lekk. Euh, di recevoir lekk bi ci euh, boutique bi nga xam ne moo recevoir lekk bi bu fekkee ne moom toujours day recevoir du mësul a xiif maanaam day bëri day bari ay ay jeexital yu mu bàyyi ci biir ci biir euh, maanaam sidi maanaam kii bi waaw bu boutique bi léegi nag bu fekkee ne nit ki xiif na maanaam boutique loolu desoon foofu nag xiif bi bu ñëwee da koy da koy rey bu ko bu ko reyee nag loolu bu ko reyee nag day mel ni béréb bi maanaam euh, kiif boobu euh, raxas na ko ba mu set bokk na ci itam bu fekkee ne nit koo xam ne dafa am graisse maanaam lu li li euh, français di wax cholestérol xaw ma maanaam mu am nit boo xam ne dafa am yaram ba am graisse bu fekkee ne xiif na woor bi ñëw na maanaam day day rocci loolu da koy rocc bu ko roccee nag loolu da koy day tax moom maanaam mu mu mu yaramam bi daal di oyof mu di maye wir, moo tax yentu sallallahu alayhi wasallam nee na tasihu woor leen ngeen wér am na ñoo xam ne sax duñu ay jullit waaye dañuy xiifal seen ngir eh, am wir gu yaram ngir loolu loolu itam koor da koy da koy may ci ci wàllu wér gu yaram loolu la lay jox de eh, day day raxas sa biir ba mu set moo tax gisee ne eh, nit ki mu ngi doon am ay feebar yu bari bu wooree rek feebar yi day di ndax euh, feebar yëpp li koy waral di eh, li koy waral di bay doole mooy lekk bi nga xam ne moom la ñuy lekk waaye nag euh, euh, kiif bu yeme maay xat loolu nag mu dem ba nga xam ne bu weeru koor bi jeexee itam nga miinal sa bopp bu fekkee ne tiim nga lekk di ko lekk fi nga yëg ne neex na rek nga jóg bu ko defee euh, ngir euh, li nga xam ne moom mooy reesal buy liggéey di reesal li mu mu bañ a balaa muy sonn rek fekk la nga tegoon ci la nga euh, yeboon biir bi jeex na bu ko defee mu oyof moo tax nga gis ne xataa buy lekk rek dafa war a lekk-lekk bu yememaay mu naan naan bu yememaay bu ko defee barab bi barabu nooyi kaay bi ñëw ndax biir dañ koy sëddale ñett barab bi da koy dañ ciy def lekk bii nga def ci naan bii nga def nooyi ko waaye boo sëfee yëpp nag ba mu ba nga xam ne fu mu nekk nii amatoo euh, euh, amatoo fu ndox jaar nga dugal ci ndox mi da ngay gis nit ki buy nooy sax dootul nooye bakkan bi waaye gëmmiñ gi ak bakkan bi yëpp lay ŋaa di ah, ah, bu boobaa nag loolu day jur maanaam euh, yéex a yéex a rees ah day jur yéex a bu fekkoon danga nga doon def ay eh, ñetti waxtu ñeenti waxtu nga da mën ngaa dem ba juróom-benn waxtu nga rees diggante boobu nag boo gisaatee ña ñam boo xam ne bëgg nga ko nga teg ko ci da ngay teg ci mbir moo xam ne dañ ko doon togg ñoragul mu ngi mel ni nga doon togg benn cin rek ceeb bi dem ba bëgg a ñor rek nga jëlaat beneen ceeb sotti ci gis nga ceeb ceeb bu njëkk bi dana ñor mais bu mujj bi du ñor bu boobaa loolu bu bu bu dajee mën na indi benn salaire boo xam ne mën na laa indil feebar kon loolu moo tax ne euh, euh, koor mu nekk loo xam ne luy maye wérgu yaram la luy maye wérgu yaram la kon loolu bokk na ci li nga ci wàllu euh, wérgu yaram waaw imaam waru waru koor wareef gi koor war ci jullit bi def ko tudd ci suratu baqara nekk saxaru ramadan benn loolu teraanga la ci fukki weer ak ñaari yëpp yàlla sépp ci benn weer tudd ko loolu teraanga la ndax mu ngi mel ni tey fu mu nekk nii bu nit ñi mbooloo amoon ñoom ñëpp ñu def délégation dem ci benn buur buur bi tudd ci kenn euh, bàyyi ñi ci des day waa ne ki ñu tudd de am na am na cër kon weeru koor bi ngay xam ne yàlla tudd na ko loolu ngëneel ci weeru koor bi mu ñaareel ngëneel bi mu ne allazi unzila fi alquran ci la wàccee lu ñu tuddee alquran ci ñu wàccee alquran alquran bi ñu wàccee ci biir euh, weer wi loolu ngëneelam la ko dolleeku na ngileem nge eh, eh, ngeneel ah, kon eh, mu ne hudan linnaasi wa baynaati min al huda alquran bi nekk na loo xam ne day gindi nit jëlee ko ci réer yóbbu ko ci njub yóbbu ko ci njub jëlee ko ci lëndëm yób ko ci leer wa bayinaatin min huda maanaam mu nekk ay lay yu leer yoo xam ne boo gëlëmee foo mën a gëlëmee moo xam ci géographie nga gëlëmee moo xam ci eh, science naturel nga gëlëmee wala ci diggante ak eh, yàlla ak ki foofu nga gëlëmee wala sa diggante ak sa sa ak eh, waajur nga gëlëme wala sa diggante ak sa dëkkandoor wala sa diggante ak sa jegeñaale boo delloo ci alquran mu wax la ci lu leer loo xam ne foofu nga war a teg ta tànk loolu gindeeku kon loolu loolu mooy bayinaat da lay leeralal lépp loo xam ne daf laa lentoon man de sama waa sama papa mu ngi nii sama yaay mu ngi nii waaye xaw ma ban àq la ci yàlla wax demal ci alxuraan yàlla wax la ko kii sama dëkkandoor la waaye dañoo bokk di jullit waaye xaw ma lan moo waral sama demal ci alxuraan mu wax la eh, eh, àq yi nga xam ne moom nga war a def ak moom kii de du jullit maa ngi dëkk ak moom du jullit mën naa mu nekk ci leneen waaw Euh, euh, euh, waaye sama diggante moom de xaw ma lu ma ci lu ma ciy def demal ci alxuraan mu wax la lii àq bi nga moo moo nekk sa digganteeg moom mu wax la itam àq bi fu mu war a yem waaw du la ko wax rek mais da lay wax ne àq bi fii la war a yem xataa ci waajur bu ñaari waajur ñoo gën a tedd waaye daf lay wax ne àq yi fii la yem am na loo xam ne nag moo ñoom waajur yi moomuñu ko masalan waajur yi lu ñu foor foor foor foor ci yow ci yow buñ la loo yàlla <laughs> yàlla de eh, alxuraan def la nag le bañal nag waaye nag ànd ak loolu yëpp nag waaye na nga nekk ak ñoom nekkin ju rafet na nga nekk ak ñoom nekkin ju rafet kii nag da ngeen bokk eh, dëkk eh, bokk itam ci biir meen wala ci biir geño kon rafetalal mbokk bu jege ba ñaala ji rafetalal diine bi rafetalal mbokk bi kon ñetti àq la kii nag moom da ngeen bokk da ngeen bokk di muy jullit rek ngay jullit ngeen bokk dëkk itam waaye bokk leen ci géejo bokk leen ci meen mu ne bu boobaa itam ñaari àq ngay def ak moom loolu la lay alquran di leeralal la mu ne la kon na nga rafetoo ak moom ci dëkkandoo na nga rafetoo ak moom ci wàllu lislaam kii nag du jullit e, e, waaye dëkk bu boobaa itam li e, alquran lim lay leeralal mu ne la kii benn àq moo am sa digganteeg moom bu la wooyee sa këram demal bu toggee loo xam ne dagan na ngir l'islam may na ngir ko ah toogal nga lekk bu la mayee jëlal waaw dégg nga loolu euh, euh, ay ay ay yàq la yoo xam ne loolu la moo sekko sa diggante bu la laajee waxal ko bu la lebee leb leb ko boo amee yow loo loo bugg a leb itam te moom mu am ko demal nga leb ko ndax yonent bi sallallahu bi mu génnee àddina booba am na benn euh, mbubam boo xam ne mu ngi ko tayle woon ci benn kër yahud dégg nga kon wax na wal na ne moom mu ngi jëflante woon ak koo xam ne du jullit waaw euh, ndax dafa dëkk ak moom kon loolu itam am na kon ci wàllu bu mënti doon bu la réer bu mënti doon lu la réer boo delloo ci biir alxuraan mooy kataloku addina bi mooy catalogue addina maanaam addina bu fekkoon am na catalogue mooy alquran mooy catalogue addina bi ah te ñu dem demin gi rafet te eh, sans catalogue bi ndax appareil bu mu mënti doon bu buñ la joxee appareil bi ba pare dañ lay jox catalogue appareil bi ñu ne la nga koy utiliser fii bu bouton bi moo lay wax ne boo buggee régler lii ngay def boo buggee régler boo buggee wàññi boo yokk bu buggee mu leer noonu la la alquran mel ci addina bi moom mooy catalogue addina bi kooku ku mu neex ak ku mu naqari ku ci gërëm ak ku gërëmutam noonu noonu la kon mu ne la eh, dolleeku na foofu yiw gindi bi muy gindi nit ñi hmm? wa bayyinaati min hada wal furqaan mu ne mooy furqaan itam loolu itam ba tey ngëneel la mooy day teqale diggante eh, dëgg ak lu du dëgg diggante dëgg ak lu du dëgg waaw day def boo demee ci alquran daf lay wax ne lii moo jub lii moo jubul waaw moo lii jubul Euh, ci ci foofu euh, boo demee ci euh, Pël sax loolu la ñuy wax ceerno ceerno mooy woni ceerno e o hakkunde goonga e fenaande o wiima ɗum woni goonga ɗum ɗo woni fenaande maanaam loolu pour ñu xam kii wax itam olof la olof yi leerul ndax polla la maanaam ci bo ba baat boobu la ñuy jëlee baatu sëriñ ci wàllu Pël moom day lay teqale diggante euh, euh, dëgg ak lu du dëgg boo ñëwee ci moom day dellu oh, moom itamit day delluwaat ci li mu jàng moom lan la jàng alxuraan la jàng day delluwaat ci alxuraan que ni lii mooy dëgg li mooy fen mu wax la loolu bul seet nag moom li muy def moom gannaaw wax na la dëgg li mooy dëgg la yow yaa yaa yaa yow yaa xam waaw yow yaa xam kon euh, furqaan boobu ngëneel la ba tey ci biir weeru koor bi weeru koor nee naa la moom bokk na ci lam itam bokk na ci ngëneelam itam ci la ñu euh, badar euh, waqatul badar maanaam xeex bi ñu njëkk a xeex ci lislaam lislaam euh, gañe xeex bi noot yéeféer yi rey juróom-ñaar fukk jàpp juróom-ñaar fukk ci fukki fan ak juróom-ñaar ci badar la amoon kon kon ko loolu itam ngëneel la ba tey itam ci biir weer boobu yàlla def na ci laylatul qadri laylatul qadri ci biir weer boobu ala kulli xaalin ñëpp dëpp ñaxaji wér yoo xam ne fukk yu mujj yi fa la laylatul nekk laylatul xadri boobu benn bés guddi goo xam ne moo ëpp junney weer junney weer ne nañ juróom-ñetti fukki at la ak ñetti at ak ñeenti weer nga jaamu ci yàlla ci benn ci benn guddi googu rek am nga juróom-ñetti fukki at yu jaamu yàlla ak ñetti ak ñetti weer yu jaamu yàlla te nangu ko te nangu ko am nga ko kon loolu itam ba tey ngëneel la bokk na ci ngëneelu weer weer wi itam ba tey Euh, moom la doon jibril di wàcc ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di di ja ñuy jàngante alquran jibril daal di jàng alquran bo ci kanamu yonent bi ba noppi yonent bi ne ko nii la la yàlla waxee yonent bi itam daal di jël jàng jàng jàng ba noppi jibiril ne ko man itam nii la ma yàlla waxoon naa la ko waxee ni nga ko jàngee kon ci biir weeru koor lañ ko doon def waaw ci biir weeru koor lañ kon loolu itam ba tey ngëneelu boo xam ne la ci biir weer bi la kon loolu ngëneel la kon euh, euh, bi mu neen fal yashum nañ ko woor rek loolu moo indi wareefu koor ci bëccëg bi ñu woor ko guddi gi ñu dog waaw kon nag boo seetee ne euh, maanaam koor nekkul loo xam ne kenn moo ko waral du yàlla du yonent bi du saxaabi du borom alam du déedéet du sëriñ déet yàlla moo ko digle nañ ko woor kon nag kuy kan moo mën a am sañ-sañi dindi digle boobu man kooku gisuma ko du malaaka du yonent du waliw du keneen kon loolu mooy indi de tegtal ne weer weeru koor bi woor bëccëg bi lu war la lii moo mooy mooy wareef bi Abdou Karim Imaam dañu lay bàyyi rek nga tàggatoo ginnaaw li ñu cërale woon ci waxtu yegsi nañu ci jeexital bi euh, kàddu bi ngay joxe rek ci weeru koor bi bu dee am na looy jox jullit ñi comme boo doon am digal boo leen doon joxaat rek loolu lu muy doon. ndax yàlla na woor leen ngir ngeen am ci ragal yàlla waaw farataal na ko ngeen woor ci comme ni nga ko farataloon ñi ci jëkk ñi leen jiitu woon waaye la tax allakum tattaquuna taqwallaahi nag muy ragal yàlla ñun noonu lañ ko waxee ci wàllu olof. mais ittiqaau seyin mooy moytu dara waaw ittiqaau seyin mooy moytu dara lii yoon wii de bëri na ay dëkk ñu ne la euh, ittaqi asawka maanaam moytul dëgg yi léegi booy teg sa tànk nga xool fi ngay teg sa tànk ngir dëgg yi bañ laa jam kon lu ragal yàlla boobu lay joxe foofu loolu ragal yàlla boobu nag mooy lan mooy niñ ko définir euh, euh, ci ci al ci ci borom xam-xam yëpp définir nañ ko nee nañ euh, boo demee ku mel ni Cheikh Cheikh Tijaan radiyallahu anhu nee na imtisaalul amri wajtinaabu nawaahi fi zahir wal batin min hansi yarda la min hansi tarda mooy nga takkoo ndigal yàlla yi li mu defal def ci langa attan ndax mënoo def lépp bàyyi tere yàlla yëpp nag nga lu feeñ ak ci lu nëbbu nga defee ne ko nga defee ko ni ko yàlla bëggee nga bañ koo defee ni nga ko bëggee lu mel ni léegi koor koor mbësten bi ñuy def loolu du ci koor euh, maanaam toog ba deux nga lekk rek nelaw noonu continuer ba onze déedéet yont bi daawul defee noonu yont bi da doon eh, bu bu naafilaa da doon tëdd nelaw eh, bu eh, këdd jotee day jóg xëdd doonte tàndarma wala le wala naan wala lekk tuuti bu ko defee mu jóg nag daal di dem julli ji suba ji a ndax julli suba bi dafa takkoo ak koor dafa takkoo ak fi ngay ba fi ngay xëdd ak xëdd bi bu ko defee nag nga continuer waaw waaye nag ko loolu loolu noonu la ko doon yont bi defee kon noonu lañ ko war a defee hatta heure boobu bu fekkee na xiifoo sax jógal rek nga dem sangu bu dee da nga war a sangu nga jàpp ñëw toog jël sa benn tàndarma wala sa xaaju tàndarma ne bisimilahi ma ma maa ngi eh, nga yéene ne maa ngi eh, maa maa ngi xëdd wala nga jël ñaari guuxu ndox eh, benn kas ndox naan ko ne lii de remplacer wutale naa ko maanaam xëdd bu ko defee nag léegi xëdd nga ba pare rek ba noppi rek demal ca jàkka ja julli ñaar ñaar rakkay suba julli ñaar rakk suba nii la ko doon yont bi dafa kon ragal yàlla boobu itam mooy nga tegu comme li ko sariya sariya nee na te te defee ko nii defee ko noonu loolu nag bu weeru koor bi jeexee itam loolu nga war a continuer e, ñu loo e, nga war a ko continuer ci sa biir dund maanaam comme li ko lax da di waxee e, daganul nit jullit di def dara ci sa ci lislaam lu dul ne xam na lii deen ku ko war a def nii nga ko war a defee euh, ci sariyatu bu fekkee ne jàngul maanaam ndax ñëpp mënuñu mënuñoo jàng boo jàngul demal ci borom xam-xam nga nga laaj ko boo ko laajee mu ne la lii dee boo koy def nii ko def waaye bul def ba noppi nag ñëw di laaj boo defee defee ba noppi laaj amatul njëriñ njëkk ngay def ngay dem laaj nan la ñuy defee boo laajtee nan la ñuy defee ñu leen bu dee nii ngay defee nii ngay defee waaye nag euh, masalan itam li ñuy dénk nit ñi itam weeru koor dafa ñëw maanaam ngir gën a tàggat nit ñi ci ci yàlla gën leen tàggal ci nangul yàlla xam nga yàlla bu la nee xiifal ma may la àjjana waaw boo lekkoon sax mën na la may àjjana waaye day seene ndax danga ko nang da nga ko nangul ndigalam rek da ko nangul ndigalam rek loolu rek laa xool ci yow bu fekkee nangul nga ko digalam ci ci nangu xiif ak euh, euh, ci nangu nga xiif nga nangu mar mu ne ah kii de nangu na ma nangu na sama ndigal te moom tiitalu ma ko tiitalu ma ko léegi nag gis nga ni mu la ni mu la ko noonu bu bu weeru koor jeexee rek dugg nañ ci sawaal zul qaada zul hijja aj itam ñëw na nga dem aj aj itam boo boo kesee ba armal boo kesee ba armal dana am lu lay liñ lay tere ci lislaam loo xam ne ci koor gi daawuñ la ko tere waaw ah, dégg nga ndax boo kesee ba armal rek maanaam mën ngaa lekk bëccëg mën ngaa naan waaye nag eh, am na yu bëri yoo xam ne itam dañ la koy tere ñu seet ne ndax loolu ñu la ko tere itam da nga ko da ngay nangu tere bi itam ba keroog eh, aj bi di jeex loo loolu rek la ci yàlla soxla ci mooy mu digal ñu eh, ñu nangu ndigal bi te tiitaluñu xam nga yàlla bu ko neexoon <laughs> bu ko neexoon ko ñëpp ay koor ndax am na nu mu doon yëngalee suuf si nii kër kër kër yi wala mu tiimale ñu benn jumu euh, safara muy takk di sànni bu leen def leen rek ñëpp ay defandoo waaye nag bu gee ko ko noonu da lay da lay bàyyee ci sa conscience da lay bàyyee ci sa sago dalay lay bàyyee ci sa sago da la bàyyi sago ndigal bi rek ñëw na ndigal bi moom jógee na ci moom jaar ci malaaka jaar ci benn yonent euh, jaar ci borom xam-xam mu ñëw wax la ko rek léegi nag ci sa ci mu bàyyi la ak sa sago waaw nga bàyyi rek sa léegi nag euh, ngëm yàlla bi nga xam ne moo nekk si sa biir xol boobu nag di di la di la liggéey di la liggéey di la di la di la di la xamal ne yàlla rëyaayam ak màggaayam ak teraangam ak euh, lam la defal ci teraanga ndax bind bi mu la bind rek doy na bu la waxoon defal ma nga defal ko bind itam bàyyiwu la noonu daf lay jox nga lekk dafa nga jox nga naan jox la wér jox la lun ay alal yu bëri eh, jox la ñu ormal la kon moom itamit loolu mu lu la def bu fekkee ne am na loo xam ne wa ne la la defal defal lii eh, te loolu mu la def def loo itam nekkul njëriñ waaye day njëriñ ngir day day delluwaat ci yow kon li ñu eh, dénk nit ñi rek mooy bu koor gi wéyee itam nañu euh, gën a bàyyiwaat yàlla ndigalu yàlla euh, xel nañu euh, bàyyiwaat ndigalu yàlla xel ci lu nëbbu ak ci lu feeñ moom looy la ñuy wax maanaam mbokk ji di ko wax sunu bokk ndax booy wax sa bopp ngay njëkkee boo njëkkal sa bopp duñ ko li ñuy wax noonu sunu bopp lañ ko jëkkoon a wax bu ko def di ko wax ñeneen ak ñeneen képp koo xam ne dégg na suñu wax ñu gërëm ko bu baax mu nekkoon imam Mouhamadou Diallo nekk fii ci Thiaroye-sur-Mer nekk di borom xam-xam macha allah kàddu yi matale na euh, mu jox ñu lii nag mu nekk yóbbal koor waaye du ñu jeexal nag te gërëmuñu ki nga xam ne tamit moom fekk nañ ko fi muy Cheikh Omar Ndiaye di wëllëre ci imam nga xam ne jamono bu ne moom tamit saa ñu fi ñëwee dañ ko fi fekk euh, ñu koy ñaanal yàlla di béggee tamit mbokk BTV yi nga xam ne ñoom itam àndoon nañ ak ñun ci weeru koor wi di leen jox euh, rendez-vous dans quinze jours ci beneen numéro nit ki amul lu dul jëfam gërëm suñu cameraman xaadim nga xam ne moom itam ci suba ba léegi mu ngi ànd ak ñun jërë ngeen jëf ci teew ak teewlu